hari parro way i ça va nanga def ça va bien bien bien naka suba si alhamdulillah bien da nga doon génn n'est-ce pas waaw damay génn waa ah ok man de dama bëggoon kii rek warga ak sukar ak ñaari sig rek yu ma ñew ki ni rek ci boutique ba yo ya, ban ñak fayda nga liir ci sama kanam ba war ma yoni ya, boutique ba Yo Abdou yow yabate nga de wala Abdou yow affaire koor gi may waxe yow motax nga may kokkeli ah. mais khadi eh digluma xam nga luma ma léegi du ma sam morom dégg nga li mala wax so beugé morom nga wuti ko yabaate bu beugé de mais dama ni la baal ma boutique ba nga jëm la taman. bul ma rombati ba nga may xuwoo sax nan ma ay dama la yoni boutique ba de nga li mala wax luma sax yobante boutique ba yabate nga torop. yow li nga nekk xam nga sama nijaay moo la ci bàyyi moom moo lay neggi neggi di la aayoo ne na man yooyu mu nekk man xam nga ne nekkuma ci. Eh, eh, eh, lu waral lu waral laay waxal Abdou wane maa ba yow nijaay. Ah, Abdou dala yónni boutique ba. waaw léegi lan lan moo xew. war na maa yónni boutique ba. non d'accord waxal ma waxal ba pare. bu ma yónneeti boutique ba laa waxal moom. Ah, daf laa yónni neexu la euh, parce que yow defe naa da ngaa xamul. li ñaan munaata xam la ca dégg ba moom muy nuur ba ca ban ba yow ba ca ban ba nga xamul yow moom comprendre la ca ban ba yow faa mu yóbbu ba ca ban ba ah, nga nuur dafa am nekk ci kër gi lu ñuy nëbbu te yëgoo ko ba duglul duglul ni nga mën a yónni demoo dinaa la ko briefing après damal damal xam nga lu ma bëgg nga wax ak moom du ma moroom ok euh, loo ko yónni yow nag xoolal bon bàyyi mhm. comme da doon génn ma mën ni ko baal ma rek nga jëndaaleel ma warga voilà warga ak ñaari si kese même simple yi sax na njëkk tey na mujj tey bu ma la rombati nga may woo sax ba di ma yónni boutique ba dégg nga li waxal ak moom yow kii li la yónni dafa simple dama excuse ah loo wax war nga suukar naana deux sik tuku tuku une madame la moom xaaru fi lii et puis wul ma tu gardes la monnaie encore pour rien yàlla wur c'est pas grave ma jël la cat bi non garde lii du dara tamit day xale day dem yónni kilifa bu toogee da ngaa war a dem. madame dafa metti quoi. wéeru daa dof daa dof. toxal bu ko kii euh, te yow man maa tax ñu naan càq càq. mooy livraison yi di dox ci mbedd yi nii. voilà bàyyi lu mu gën a a baax. dama war a génn incha allah dama la bëgg di corniquer man maay càq càq. dafay daan doole na. kon càq càq may ma maa ko way ma maa ko dawal. non bàyyi bàyyi yow nañ mën a def affaire. non dinañ mën a non yow moom actionnaire à quatre-vingts pour cent ngay doon. ñu jënd ay moto. jox booy yi ñuy dawal di càq-càq. d'ailleurs loolu idée waaw est-ce du ma dugal u moto. ay waay dang may nax ma dul directeur moto yi. xam nañ ma directeur moto yi loolu force la. yëpp xam nañ ma. quatre-vingt pour daanaka entreprise boobu yaa koy am na booy yu daan sàcc fii daal di këf nii di sax nii. donc hmm. maa ngi leen rek ne tey maa ngi barke yàlla. ah bon oh, barke yàlla. ah ça c'est bien ça c'est bien. ah maanaam dina ay 17 ans yooyu. ah bon après ñëwaat na. moom bi gudd na ah. non kooku amul problème léegi maa ngi dem ah. léegi day am naanaa. Ah. bon s'il le faut de waaw. jërëjëf parce que waa que ba tey. Oh, foofu s'il le faut mooy la. maanaam bu ko jaree quoi. Ah, tubaab nga de yow mii. non bàyyi daal kenn la quoi. warga suukar naan naa isik warga suukar naan naan isik. warga sukar nana naa isik li ne lañ ma yónni woon yaa fayda ah yow bëccëgu weeru koor ah bëccëgu nar narakamugi. gi ah li xale yoo ko waroon def nga ñuus leen amoo loo def lu yor sa warga ak sukkër di daw mel kuy warga sukar nana naa isik warga sukkër naan naa isik mag mu toll ni yow sa vert dañ maa ah. yoni yow kan mo la war yoni yónni sama grand frère bu baax day char ay sama grand frère mo yoni yónni bàyyi la yoni yaa li ma wax ñoo nga yow benn mag nga amunte dee nga magal ko demal nga naani attaaya man waruma laa jox sax loxo di la nuyu dégg nga li ma la wax. 2000 la ma jox ni ma jëndal ma warga suba suukar isik ma nga jël weccat bi ku la jox 2000 may la weccat ci warga suba. weccat 2000 francs moo tax ngay jaay sa ngor ci weeru koor wi. dama dimbal ku yorul lu mu ñu may la weccat. sa yor nekkul ci ñeenti téeméer. yow jarul ngay wor ma ñeenti téeméer. loolu moo tax ngay def lii. waaw yow boo ndoxoo sax amoo koor. ku ñàkk jom nga. jërëjëf jërëjëf xool ko jërëjëf yow am 2F man waroo maa yow yow waruma sax di wax ak yow. ndax lan mais da ngaa war a def li bàyyi. yow nit yónni ya, la yow yàlla na ma ne ki loolu ko ñàkk personnalité la. Ya, ki ma yónni tey bu yónni woon sa baay ma dem. man nga wax bu yónni woon sa baay ma dem yow ya, de bàyyi dinaa la noq yow loolu leer na dinaa la ñuus ba nga duul. kaay kaay kaay kaay. du yàgg dara fi ma lay xaar xam nga ko. kaay kaay ah kaay kaay la kaay. ay xeer la ko teg lii di suuf.